production présente. waaw ñu ngi koy teg si yoon ñu liggéey matin soir mbër bi tamit mi ngi réguler entraînement ak ñi fi gis nii ñëpp équipe bi ñii ñoo fi nekk waaw équipe bi ñii ñoo fi nekk ñu fi nekk nii ñooy entraîner matin soir waaw di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam rek. waaw waaw mi ngi def lépp combat bi lépp mi ngi koy def. lépp lu combat bi laaj rek mi ngi koy def lépp lépp lépp ngi koy def waaw di wax mbër mi adversaire na nag foog amul de waaw. waaw comme qualité yi ñu gis si bépp combattant rek waaw mbër la champion la mais tamit ki muy dajal du cuune ko waaw ba mu xam loolu ki muy dajal du cuune te tamit yàgg na bëree ko waaw. da nga koy pekkiloo wala da nga koy mbapat non loolu moom waxtaanu biir néeg la <laughs> loolu moom duñ ci mën a sori quoi hmm. waxtaanu biir néeg la waaye incha allah le 28 hmm. yuuxu dina jëf ñu ko foogeewul quoi hmm? waaw lu leer laa la wax yuuxu dina jëf fu ñu ko foogeewul waaw waaw mais combat bi yaakaar naa ñun ñooy meer de ñoo mën fuuf waaw ñun ñoo mën fuuf sax bokkul sax waaw bokkul ñoo mën fuuf waaw ñu ñaan yàlla daal yàlla defal ñu jàmm ba le 28 di ko ñaanal moom it am jàmm ndax bu amee jàmm ñu dañuy am jàmm quoi waaw bu jour bi le yàlla defal ñu jàmm. mais coach kontaan naa yow. amiin joxal sa doomu bëri. maa ngi delloo ziar par. Zoss. waaw ah, sa poulain laa waaw mais sama grand la sama xarit la sama mag la quoi ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam bu baax avant tout. waaw ñu ngi koy préparé comme ni ñu doon préparé yeneen làmb rek mais làmb bi dafa rawati parce que dañ ko bëgg ndax lan dañ cee wéet te wéet gore wéetali ko gore kon ñun dañoo war a gore ba daan barke alxuraani karim su ma sañoon ak yàlla bu ma daanati mbër combat bi day daan ak nu mu demee la quoi entraînement rek ak gëm-gëm di woo parcelle 1 ba 26 na ñu ñëpp ñëw jàppale di woo sunu mbokk séeréer yi ñu ñëw jàppale ñu ak képp ñaan nag ñu jàppale ci combat bi ndax combat bi bëgg nañ ko te am na fu ñu mën a yóbbu te fi équipe bi toll nii dañoo soxla victoire bi ndax yàlla ñun ñu gën a gëm suñu bopp xam lañ doon quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. leen rek laa koy wax Zoss moo ma dëkk ci làmb ku la jur ci néeg bu lëndëm moo naan la toogal fii mënatu ma ko conseil ci làmb ndax li mu bëree bëree guma ko li mu def defa guma ko mais dama koy xamal ni ko làmb avant tout entraînement la Zoss bu respecté entraînement kenn dàq koo bëri ndax doon na taxaw fii ni kenn du ma daan fi ponkal nekk ñëw ngoon ni kenn du ma daan kenn du ko mën a daan ci bis boobu kon yaakaar entraînement day nelaw rek su ko yeewee moom day yeew te yee na ko ba pare te lu ci des ñu kontaan ak moom des ñu yëg ko ci dini jeex na bis bi ñëw ñu dem ambiance def li làmb laaj ànd ak si daal ñibi maa ngi dellu ziar bu baax mais sama xel dal ci sos rek waaw sama xel dafa dafa bu baax a baax parce que si kàttanu yàlla ñoo ngi liggéey li ñu liggéey bu bis baa dinañ xam Alioune Seye dina xam li ñu indi dañ ko wane bu baax a baax incha allah non Alioune combat lu mu laaj daan ko def après xam ne ñun pare nañ lépp de billaahi sama grand ayisee mi ngi si bu baax a baax a baax a baax comme li sama doomu lay aada bool wax rek yokk cere dolli ñeex rek ci sa xam nañ sos ñun bu baax a baax mais doom yaay pare nañ bu doon taya tay tay tay bu doon taya tay bu ci guddi gi min wi ñu bëre ko waaw waaw incha allah maa ngi delloo ziar. non. bilaay ñi dañoo yàgg ko dañoo yàgg du làmb moo ñu boole dañoo bokk ba pare lii boole ñu te lii ku ne ku ne démb neexul rek tey a tax ndax ñun démb lañ woon tey bu neexee dañuy ànd su naqaree dañuy ànd te liñ koy ñaanal nii ñu ñaana yàlla na ko yàlla may ndam. retour am man moom ump ma parce que maak moom benn lu nekk ci man mi ngi ci moom lu nekk ci moom mi ngi ci man kon xamante nañ xamante nañ bu baax te bu nekkul si dara dama naa nekkul si dara su nekkee ci dara dama naa nekk na ci dara te nii mu ne nii ci kanam rek lañ jëm. <laughs> loo ci xalaat rek ak looy bëgg a xalaatit lépp a ngi si biir waaw lépp a ngi si a <laughs> ñu ngi lay ziar yow. maa ngi leen suñu diggante ak xanaa i maafin ngaat rek na doole no yaaloxe. maxe xooya o fog seereer fop ta ndamonu kombaane. Mm. o mbel falaq bo faas barigo. bo bo Diofior hendim uh-huh. fen bo basul uh-huh. fop mi xoya nun nu kombane o fog sereer tu ngar yo te ndam te a fadi a faaxa mi a sereer refum refim o paal waaw maxey xoyam o xey sereer wiin we fof waaw te dimle xam waaw te ñaanal xam ma gañe waaw Gaston Production présente.